والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيد الوجود وعالم الشهود ناصر الحق بالحق طلعة الحق بالحق سيدنا محمد عند لي بحبل الوصال صلى الله عليه وسلم إنه لمن دواء الغبتة والسرور والحبور جلوسي أمامكم في هذه البهرة العامرة لنتحدث حول قصيدة ألفها فريد عصره سيد أبو بكر سي السميدع الأحلحوذي أنار الله ضريحه ما أقام لعلع وما جرى ليعفور بسلع بوكيني سيتان ñu seetaan دي ديلو سياجين ci événement bu tedd bii nga xam ni mooy xew-xew boo xam ne bu ñu ko tuddee xel yépp dem ci nitu yàlla bu mag Seydi xaj mali nga xam ni sëriñ Mansour borom daara ji buñ ko bu daan laaj koy allah maa daan alladi laa yu jaara wala yu daaha wala yu baaha lahu yadu tuula wal gaayatul quswa wal malja wal mawa cheikhul mashaiqi fi l islam diin noonu la ko daan jàppe di wax kan mooy Seydi Hadj Malick radiallahu taala anhu waaye yàlla dogal Maodo bind téere boo xam ni ñu ngi ko tuddee xilaasu zahafi sirri xayril arab sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu def ci lu ñu tuddee taqriz taqriz bu ko arab waxee mooy nit way li mu def yéeme nga pare nag def lu mel ne ndokkeel ci li mu bind mais dimension bi Seydi Hadj Malick waaye xilaasu zahab moo tax sëriñ Babacar si parce que bu fekkee daf ko ndokkeel te lim ko ndokkeelee daf ko teg ci njureel wala bakkan du am sens mais daf ko tek ci parce que dimension ki di wax li niveau xam-xam bi muy andi motax tax hadj mal seigne Sëñ Babacar Sy daf ci takhris khilas modo daf don jàngale siira ba yex ci xasida ji di di jàngale miimiye jabir ki Seydi hadj mal don jàngale ba yex ci gàtt yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te gàtt yi téeméer lañu woon mu su ko ëpp eh, muy jàngale ba ci biir boroom téere ba jël ñaar benn gàtt bu am ñaatu muy raw sa ak ray sa ñenn ñi def ni ñaari gàtt la fekk benn gàtt la bi mu ci yegsee nag ba foofa la Sëriñ Xaaji Malik néew dafa mel ni daal dama war a dugg ci géew bi ci la bi de xilaasu zahab moo tax sëñ Mansour danaan laaj daan na laaj jam من بعيد من جاك خلاص ده نحني بغيثة دعية أو غيوثة بغيوثة دعية أو غيثة يمن شاتن له قمر وعدة فلا تنمي ما النت بوي بند دفع أم نيو خم نجي وحي القلم لني بند بس ك دنا جاهل نجي لطخ ميمي نمو أمي دولة ما هو خيرني الحمد لله زي الإيجادي بوتايون تبي دفعني كل أمرين zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim fa huwa abtar mbir mu ne soo ko dee tàmbali te tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim loolu amul def dafay dagg wala aqta moo dox xëy rek ni alhamdulillahi si lijaay pourtant moo doon nax bismillahi abtadi u ni ko borom bindkat yi waxe mais nekk dafa am lu ñu tuddee al rahmaan alama al quran dafa am bil al bayaan am al banaan suñ ne al bayaan mooy leeral mais buñ ne al banaan mooy loxo mais ndekkete nit mën na jël xalima gi yéen ci بسم الله الرحمن الرحيم بباري تفلي كو مجي دوال الحمد لله رب العالمين موتاخ الحمد لله رب العالمين بي سين حاج مالك ابن ميمي بي موم لاكو داجي باسكو الحمد لله ذل ايجاد تاجي كو حمدا يوافي بان عام لنا وفرت مي خول باخو سين حاج مالك نيان جيم كو تاجي نيتو يالا نيان نكو تا كابا غا تي ديوان نيانات ميم نيان غي haatif yuux ko ne ko dimbali ñu bul fi ñaan ñaan gi parce que daaw nga ko ñaanoon ba ren ñu ngi séddali tuyaaba ja xewal gi mu tëw a jeex baaxu alaaj Malick indi mu jàngal ko ci biir mii mi mais alhamdulilah Seydi Hadj Malick fii la ñuy jàngalee alhamdulilah bi ànd ak zamaan ak alhamdulilah bi ànd ak makaan ak alhamdulilah bi àndul ak zamaan àndul ak makaan moom la loolu Seydi Hadj Malick rek yàlla na yàlla yokk leen moo koy jàngalee parce que di nga moo tax arrahmaani rahim bokkut ak bismillahi arrahmaani rahim ñaari rahmaani rahim yooyu boo demee ci alfusus xakam bu ibnu ataillah bu bu muhiddin ibnu arabi alxaatimi daf lay wax ne bis arrahmaani rahim bi ci bismillah bokkut ak arrahmaani rahim bi ci alhamdulilah rabbil alamin parce que alhamdulilah rabbil alamin alamin yooyu ñoo moom arrahmaani rahim mais rahmaani rahim bi ci bismillah bismillahi arrahmaani rahim booba jëmul ci alamin yi moo tax da nga koy bàyyi ban environnement la ko nit yalla yi di jëfëndiko motax Bismillah bismillahi mujuraha wa mursaha motax tax rahim joju ñu ñu la ngay rend di ko ci tuddu parce que tur ci awalim yam wara dox metit bokku ci motax boy rend rendi di yëm ci bismillah mais do egg ci rahman rahim boy sexti bu ceeb di yëm ci bismillah parce que do egg ci rahman rahim parce que metitu bañ yi ni mi ni mi broyer lek gi ak paaka bi ni mi raye gatt bi non bu ci boolee arrahmaani rahim nak parce que sen maqama yene ci kaw bokkut tak maqama yi nek ci suuf mo do wax ak ñu alhamdu di bu delu ci zaman parce que lahul bo gisé lahul hamdu fi samawati wal ardu wa ashiyan wa xiina tudhirun koku hamdu boobu mi ngi ànd ak makan moy lahul hamdu fi samawati wal ard mais am hamdu ànd ak zamaan lahul hamdu fil ula wal akhirah ci sortu qasas bobu àndul ak makan mais zaman la àndal mais am na beneen alhamdulilah bu àndul ak zamaan àndul ak makaan boobu la moo da jàngale ci alhamdulilahi zil ijaadi wal qadami mais mu jëfandikoo benn lettre bu ñu tuddee miim tuddee ko miim yee moo tax euh, euh, mag ñi Seydi Hadj Malick jàngal bu fekkoon nit yi sañ nañ jëfandikoo terme primaire ak secondaire ak terminal dañuy wax ni Maodo am na ñetti miim yi am na miim yi primaire dara du primaire ci Maodo nag mais la ngay njëkk dal mooy miim yi abada ak mémé bi nga xam ne mën a secondaire muy nasiha yi mu defoon ci Muhammad yabna ammi la alam xusil wasiyata di min dim ni xel xekamu muy mémé ak alhamdulilahi dil ijaad bi nga xam ne mooy mémé bi mais Maodo dafa laaj weer badr weer ñaata fan la ñu ne ko fanweeri fan badr mooy lu mat te yonent bi boo xoolee turam ta hada ca bokk ta tegal ha tànk bi parce que yonent bi day naafila ba mu yàgg rek yéefari màkk yi ba tànk bi néegi mu jël tànk bi mu teg ko ci morom tànk bi yéefari màkk yi rek ni ko wallahi ma andalallahu hada alquran illa li shaqaawate ko toroxal rek a tax yàlla wàccee ci alquran yàlla nag di ko tontu ni ko déedéet ta tegal ha sa tànk bi ma andalna alayka alquran li tashqa mais boo xoolee ta ci chiffre arabe neuf la mais ha ci chiffre arabe cinq la mais boole boole quatorze la la jox mais weer pour mu mat badr pour mat day am quatorze jours Mudah mu jël nak yonent bi saa sam comme moy taha mu badr muy wër wi nga xamni motax ad tax ak al-badr dana leen wax différence bi Allah Maalik di jëfëndiko durru ak fi muy badr ak bir mi may ñaata badr ñoo ci nekk ak benn bu nekk lan lay firi donc sidi Hajj malik jangal ñu ni fan wër fan la muy jël xalaat def ko wër buntu parce que kan Seydina Muhammad la war jangalé té moy wër weer nga xamni ni loolu tuddé tuddee dañ ko koy abal mu jël mimiya muy lettre mim nga xam ni boo xoolee ci nitu yàlla yi dañuy wax ni ñetti chiffre ñoo ëpp doole ñetti xaraf ñoo ëpp doole ci xaraf yi mooy miim ak nuun ak waaw parce que lu tax lañ tarbiya bi ñu leen defal ci bidaaya tarbiya boobu lañu am ci nihaaya parce que di song nit defal ko tarbiya mu am bidaaya mais nihaaya du ko am moo tax miim nag miim la tàmbale mais miim la jeexee waaw waaw la tàmbale mais waaw la jeexee euh, euh, euh, nuun nuun la tàmbale mais nuun la jeexee mais laam laa la caa tàmbali mais mim la jeexee kaaf kaa la tàmbali mais faa la jeexee ndekete xaraf yi li yàlla wax ni lépp góor ñaar laa ko paire laa ko benn ndekete même lettre arabe pour mu am existence ñaari xaraf ñooy sëy pour benn lettre mën a judd par exemple alif ak nuun ñoom ñoo sëy ñu nëbbu tomb gi laam juddu moo tax boo demee ci futuhaat da nga yëg ne xaraf bu nekk dafa am ay martaba xaraf yi dañu am ay communication xaraf yi dañu am ay kilifa xaraf yi dañu am ay surga xaraf yi dañu am ay bëkk néeg moo tax kunnaa xurufan aaliyatin lam noqal bu ko nit yàlla yi dee wax ñun ay lettre la ñu woon lettre yooyu bokkut ak lettre yi nga xam ne moom la ñuy gis alaaj Maalik nag nii danaa def lu kenn mësul def ci lu ñu miin d'accord daan na am parce que ki njëkk jël chiffre def ko ay lettre mi ngi tudd Mouhamed Chakir an-Nahlani Maodo xam ne mii mee basid la parce que basit moy lu talalu mu yonte bi leppum dafa talalu mu jël khasib def ko basit mustafaalun faailun mustafaalun faailun loolu la tëggi mim ya bi mais jël mim bi nga xam moy mooy matam parce que yent bi ñu ko yoni bi mu amé 40 ans min baadi tain wala min summa sittata ashhurin raa kan fi laq subh lam yanami mais bo xolé mim 40 bobu mom lañ jox yent bi nu bu wëggi miim boobu nag boo xeele li ñu ëmb Seydina Muhammad parce que alaaj ma ngi dafay kala day wéx mi ngi déparé ñun ñaata temps lañ ëmb yent bi jabal huda summa bawan wal baha adaban hamlun ñi nañ 6 mois ñii 7 mois ñii 8 mois ñii 9 mois

ñeenti saxaaba moo am Abu Bakar Ousmane Ali Omar ñeenti madhab ñoo am Shafii yi ci li ñu ci lim yi siiw donc anasir yi arbaa la ñeent la ndox ngelaw donc yëpp yëpp moo tax yàlla bu jabar weesu ñeent parce que lu tax turu Seydina Muhammad ñeent yoon la ko yàlla tudd ci alxuraan weesu woo ko loolu Seydi Hadj Malick moo koy jàngale waa këram ci bidaaya pour ñu xam moy chiffre bobu moy mimi bi nga xam mom la jël mimi motax mu jël mimi motax ma wax leen ni am na boo jël ben moy abada bo ro roqin taxta junxi zalami am wajjuxum ma amru bu rubu aychimami boobu miim la mais mimi bi mom nga jëk jàng mais xolal dama lay wax ni première Maodo sax seen mimi ya daf lay jaxal motax bo demé ba ci bir mana inna naamata fi tibaai naamati tabiat naamatahu muridu salami nga xamni lolu buñ la ko jàngalul ci kër modo pour nga firi ko day am jafe-jafe mu dem ba ci biir jël beneen miimiya boo xam ne mi ngi ko def ci doomu bàjjanam muy Abdou Khoudia muhammad yamna na amil alamu xudil wasiyata di min dimni dimnihi alxikamu dem ba ci biir mu naan alayka ma achta ilmu lulama kada tibu l atiba wa xikamu lxukama alkaramu laaj maa ngi ni ko nag yii alayka ma achta ilmu lulama mooy laa adri moo doon nee na ko lu mën a metti ni xaw ma nit mu tax xam lépp maam bi mi génn bayina fi 32 questions yum mu kaza tibul atiba moy li médecin yi di def sen remède moy di faral di xiif moo tax bi neena sumu tasihu del na wor wér kaza xikamul xukamal karamu mooy noppi ak sumtu mag ñi moo jël ben bayit jàngale ci ñet yoy jël mimi nak duggal ci astronomie jël mimi duggal ci science physique ديال ميمي ديغو سي سيزان سيانس ناتورال ديال ميمي ديف سي شيفر يما لين دون واخ ليغ باسكو جبل هدى جبا بوك خولي موي يونتي صلى الله عليه وسلم ترافيرسي مي بو خولي جبا بولنا مي بو خولي جبا جيم بي 3 لا با بي 2 لا الف بي 1 لا موي 6 الله يماري وخالا سي 6 6 mois لا نيمو سيدنا محمد دونك دي اوتيليزي شيفر مي ان ميم تان دي اوتيليزي سوخلام تي بير ميمي mais bayit bu njëkk bi alaaj maa ngi def ko 46 xaraf lettre nga xam ne wala ilahi fi al ard huwa adam mais xoolal mu jël alhamdulilahi ijadi wal xidam yi xoolal alifu alhamdu ak euh, xidam gi mi delu <coughs> delu xidam gi ak min gi mooy tolloog adama <coughs> mu jël amadda al mu adama bi nuuri muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam départ rek soo ngi xilaas ñu ni junni bayit la ak téeméer lu teg Maodo jël miim ya ci commencement bi rek mu ne huwa jinsul ala ma dina mi avec def alerte ne mu amoo munoo jàngale miim ya te jàngoo mantiq jàngoo usul jàngoo bayaan jàngoo funun yi ngay xam parce que miim ya du lu ndaw parce que boo départ ci bopp miim ya mu ne huwa jinsul ala ma sutu sutumi laaj maa ngi foofu da lay bàyyi sa xel war a dem jànge mantiq ba maîtriser ko ba jàng al kulliyatul xamsa mun kulliyatul xamsatun doona intiqas jinsun wa faslun aradun nawun wa khas nga xamni ñet jins mo am jinsun kharib jinsu baid jinsul mutawassit ak jinsul a'la lolu moy jawhar kon bo ñewé ci bop mimiya rek huwa jinsul a'la ma'dun sutumi be bo mais boo firi jawhara mun lo jàngal mimiya alaaj malik di la kon mimiya du du du lu ñuy du lu ñuy pelemtu cest di dire fokk nga nekk nit ku maîtrise xam-xam pour mën a wax ci mimee mimee bayit boo ci jël aaya alxuraan la danaa ko indi li ko sëriñ Babacar si indee bayit boo ci jël hadis la mais bayit boo ci jël siire la parce que Alaaji Maalik dimension xam-xamam la waxee euh, euh, mu jël mimee ba tey sootul ixlaas muy xul huwallaahu ahad awaalim yi ci nekk aalamul jabarut aalamul malakut aalamul naasut aalamul laahut aalamul haahut juróomi abalim yooyu la def ci biir bopp mim ya alhamdulillahi zil ija lillah mu dell ci laahu zil ijaad mu dell ci naasur wal xedami mu dell ci malakut mu middina mu dell ci jabrut ba ba bayit njëkk bi jeex moo da yemu ci jàngale ndekk salaatu ala nabi dana ñëw ci ay maqaama dana ñëw ci martabu jamal dana ñëw ci jalaal dana ñëw ci kamal mu ne ma raada raadu والورقة وتنحب من هديلها وجرى دمع على قلمي موني دنبي صلاة على النبي ده هو دخل ميت جلال والورقة وتنحب من هديلها صلاة على النبي ده ميت جمال وجرى دمع على قلمي مي كمال مبول على مالك بولو يوي يونتي بصلى الله عليه وسلم avant yàlla di bind nit ñi turu yàlla yi ñoo defoon benn manifestation def marche wa demé yang koy fekk ci naylul amandi fi tibbi ruhani wal jismani wala nga fekk ci al futuhatul makkiya yoy yep mag jàng leen ko parce que turu yàlla yi 99 lañ mais du 99 ben turu yàlla mo am walillahi al asmaul husna mais turu allah mom mo am ay ay ay turundo donc ben turu yàlla mo am mais ñom dañu am ay turundo lañu ñu tëddee des adjectifs qualificatifs donc allah mo fi nek motax ud'u allah aw ud'u rahman ayyama tadoo falahul asmaul husna yàlla nee na da ngeen di tudd allah wala arrahman war ñaari tur yi rek ngay gis moo tax arrahman ak allah eh, eh, ya allah yàlla nee na amul jafe-jafe wa in saaltahu man xalaqa samawati wal ard la yaquluna allah ku bind àdduna ak asmaan dañaan yàlla mais wa isa xila lahum usjudu lir rahman xalu wa ma rahman an nasjud li ma tamurna wa zaadahum nufura c'est-à-dire bu ñu leen li arrahman rek parce que dañ naan koy rahman parce que rahman day delu ci sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam te yonent bi saa sallam bo gëmul yonente bi gëmu alxuraan do xam yonent bi ñu neubal leen arrahman parce que fokk nga am leeru yonent bi pour mën accepter arrahman motax ben sar saaru rek mo tuddu arrahman alif lam ra ha mim nun al huruf al muqattaa araf ñu dagg ci bi alxuraan ben tur yàlla rek moko ko ma dajale muy arrahman alif lam ra ak hay mim ak nun wal qalam yooyu lañ bind arrahman moo tax fa bi ay ala rabbikuma tukazzibaan 31 fa bi ay ala rabbikuma tukazzibaan moo nekk ci sootu rahman moo toll ak alif alif gi ak laam gi muy 31 yi moom moo nekk ci arrahman moo nekk ci biir arrahman allamul quran xalaqal insaan allamahul bayan mais arrahman yàlla moo tax iqra bismi rabbika ak iqra wa rabbuka ñoom ñoo am bii yaa ngi koy jàng ci alladi alama bil xalam bii alama al insaana maa lam yaalam moo tax Maodo bi muy bind téere bi daf ko bind ci leer moo tax pour nga dégg téere bi dafa am jafe-jafe pour nga dégg ko parce que leer moom moo mën a dégg xilaas saa fii sa xel daan na wax moom Seydi Hadj Malick man xaw kañ lay dégg sama téere bi man Maodo. Tivaouane TV, la lumière de la Tijania.